ay bés yu néew ñoo des ci feetum korite lu soxal boroom kër yu bari mooy am dugub bu baax te oyof ci seeni poche wante li ne mel dina jafe matale ndax daanaka yépp cher ci marché yi. mooy loolu seer na moom wax dëgg yàlla seer na surtout weeru koor bi moom wax dëgg yàlla dafa metti mais il faut ñun ñu dund ko rek. te xam ne léegi mu jeex benn weer rek la lépp ay yokku lépp ay yokku soble day yokku pombiteer day yokku oignon day yokku mais yaay xool li la arrangé rek nga jënd ko mais après ñoom buñ ko yokkee après day des ci seen loxo yi rek. événement bi la rek bu événement bi jeexee rek après day jeex. marché moom seer na bagage yi ñu ngi indi bagaas yi jaay mi doxul kenn jëndul daal dañoo toog rek di xool yenn nga yëndu ba ngoon loo ndogoo sax doo ko am wallaay. lépp seer na bagage yi seer na boo ko indee marché doo jël sa xaalis dañ lay jot di la fayee ku doo am loo leen delloo. Oumar Diouf di ab commerçant ca marché Castor buy xamle ne diwlin ji yokku na bu baax. waaw diwlin moom yëpp a yokku moom 20 litres bi daa yokku 5 litres bi tamit daa yokku même bu ndaw bi tamit dafa yokku 20 litres bu ñu ñu ngi ko doon jëndee ay 13000 wala 13500 bu seer ma seer 14000 waaye léegi muy jël ay 20500 yooyu 5 litres wala yi saa yi ñu koy jënd sax 23500 bu njëkkoon moom bu seeroon ay 18500 lañ ko daan bu di def 4 ñu ngi koy jëndee 21000 mhm. bu njëkkoon 13000 lañ jënd 13500 seeroon parce que ñun boo xoolee diwlin nat yi ñuy jaay sax léegi 1100 francs lañ koy jaay wala 1200 te bu njëkkoon 900 lañ ko doon jaayee même bu 1 litre bi tax daa yokkul léegi fi mu ne nii 15500 lay jar te bu njëkkoon moom tamit 13000 ay 13500 la yooyu la doon jar. pomme de terre bi tamit waxi noppi. pomme de bi mu ngi yokku nii sax mais bëreegul noonu quoi seer seeragul seeraay yooyu. pomme de terre bi instant yii fan yii si ginnaaw moom doon nañu jaay saako 5000 sax. ñu nemmeeku ne yokkute bi fépp la. ba ci sax njaayum salade bi bu ñu sukkandikoo ci Oumou saajo Ba. parce que fu ne nii salade bi dañ ko bëgg a ba pare ñun bu ñu ko indee si marché bi dañuy wax ne salade yi dafa bari dafa bari instant yii na lu ñuy jëndee si tool yi dafa bari torop. dafa seer le bu ñu ko indee si marché bu ñu jaayee suñu xaalis bi sax léeg-léeg du génn waaye na ñu ngi jéem rek nee na kii bi nee na koor gi la xam nga koor gi léeg-léeg da doon jar waaye léegi fu ne nii dafa bari looloo tax jaratul yokku na de yokku na événement su ñëwee bagage day yokku persiroofu lu jar ay 100 francs léegi jaraate na ay fanweer ay 200. may puy di ko firndeel. waaw palaanu salaat 10 000 15 000. li ñuy jaaye salaat seer na boo ñëwee fii koo jox saafara francs lañ lay wax jaay ma cent boo demee ci tool ba doo am loo wer si boroom te yaakaar da ngaa jaay xaalisam lekk te fekk du loolu bagage yi moo seete marché bi nit ñi mooy loolu amuñu xaalis par plan la ñuy jaay plan ñetti junne pala ñaari junne pala junni ak juróom benni téeméer bu njëkk bu njëkk dañ daan jëndee pala juróomi téeméer plan 2000 voilà 2500 lañ daan jëndee waaye fi mu ne nii koor gi tax na ñu yokk lépp. Muxtala di am ndaw buy jaay ndugg jàpp na ne poivron bi bokk na ci yi gën a cher. waaw kaar gi moom fi mu nekk moom daa yokk moom waaw kilo 2300 lay jaar kilo bi. kilo bi doon na jaar 1800. waaw bu koy tiggalee jegeñ sax dina gën a yokku. waaw foofu itam dina seer de léegi kees gi trente mille day tegal ka ñoom jaaykat yi diw xam xamle ne bile yokkute mu nga dooree si baykat ya waaw ah man de sama yaakaar bi daal di ñëpp dina am waaye balaa ñuy am day ñooñu dañuy jaay lu seer parce que baykat yi ñooñu ñoo koy seeral ñooñu bu ñu ko jaayee foofu lu seer ñun tamit forcé il faut ñu jënde parce que ñu lu ñuy liggéey lu dul lii. non man ma xamul loolu mu war a yokk bi mais chaque chaque euh, événement ko koor gi moom bu dugg moom eh, wala diwlin beeg yooyu moom day yokk moom bu baax sax. ñu fekk ko muy jënd ndugu soxna si di wuy ci turu xadiloo di sàkku ci kilifa yi ajoo jënd ak jaay yombalal mbir mi jaaykat yi ñu jàppale ñu rek ñu ndugukat yi ñu jàppale ñu tamit jàppale jaaykat yi ndax jaaykat yi tamit bu ñu fayeekoo place bu seer ah ñun ci ñun lañ lañ koy fayeeku ndax tey bu ñu bëggee jënd saamu carotte cent franc dañ koy wàññi tey bu bëggoon a jar du jar tuuti la ñuy saam cent franc léegi yéen ñun kon il ñun ñu obligé jënd ñaari saam ñu am luñu mate moo tax ñoom nañu wàññi rekk bu ñu wàññee jaaykat yi tamit xool ne dëkk bi léegi neexul ñu wàññi ñoom tamit. jamono metti lool teks yi ak mbas mi ñu nekk poos yu bari ruus. wante terewul ñii di waajur yi xas seen tànku tubéy ngir bégal njaboot gi ngir amal feetu korite ci nu mu waree.